jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média mbokk yi teewlu xibaaru marax yi ponk ci gën a fës ay IPM yoo xamante ni dañu leen di tudd dëgg waaye booy xool sax amuñu loolee la ñu nemmeeku eh, ci ab rapport rapport ba la mu wax itam yenn ci yorinu IPM yi ci Sénégal teguwul ci yoon ba tax na nag daan ci jël eh, dogal ngir IPM yooyu ñu gën leen a saytu gën a xam eh, ni ñuy doxee beneen ponk ci biir xibaar yi lay doon lu toll ci ñetti junni ton ci ceeb la ñu ne rënk nañu ko ci magasin yi ay producteurs ñoom ñoo ko xamle ci lim googee nag ñaari junni ak téeméer euh, ci euh, ceeb gis nañ ni nii ceeb la boo xamante ne nii euh, kon ceeb bu weex la fii ci Sénégal jëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njënd mi ak jaay mi di sàkku ci acteurs yi ñu def seen kéemtalaay kàttan ngir nag ceeb bi ñu gën koo mën a yoonal fii ci Sénégal waa UNACOIS ñoom la ñu wax rek mooy ceeb bi nga xamante ni dafay dugg si ci biir réew mi li ko bloqué ñoom xamuñu ko lu jëm aju ci wàllu ko ceeb boobee producteurs yi nekk ci bee ca ñoom dañoo jaaxle ndax ay hectares hectares ci seen tool ya moo daal di yàqu juróom fukki hectares la ñu ne sàkku na ca gox boobee ñu naan sulul sulul gox boobee ñu naan suluf kon loole la ñu fa nemmiku la ko waral nag moo dina mbóot ya ak janax ya ñoom ñoo lekk tool ya beneen fonk ci biir xibaar lay doon ñeel wàllu wér-gu-yaram consultation yu njëkk ñeel xale yi nga xamante ni dañoo amee jàngoroy xol door nañu ko tey ci suba ca centre cardiopédiatrie bu hôpital Fann loole nag gannaaw ñuy tàmbali li nga xamante ni moom mooy opération ya fondation Koué moo ànd ak ay partenaires am la ñu bëgg rek moom mooy fexe ba daal di jàngoroy xol ci àdduna bi te ñu xayma leen eh, ci fanweeri junni tirailleurs yu Sénégal yi ba nëga ni seen gëdd ñu leen ko eh, na mu waree loolee gis-gisu Jean-Marc Ayrault la moom jëwriñ français bi ñu dénk wàllu jëflante ak biti réew moom nag mi ngi amal ab nemmiku fii ci eh, Ndakaaru demoon na sax fële ca sëkk yu caaxo yi nemmiku googee nag tey jii doon na ci janoo ak taskatu xabaar yi ànd ci ak naataangoom bu Sénégal tàggat yaram Afrique du Sud Sénégal ni ki nakaseer ji lay doon sunu gaynde yi ñoom def nañu seen ñeent tàggatu xamante ne rek moom mooy polokuwaan lu aju ci loole sunu gaynde nañ jàpp ni ña ngay def seen kéemtalaay kattan ngir nag seen janog ba fana ba fana yi mën a jaar yoon mbokk yi ponk yaa ngi ñi ci yaatal gi léegi léegi jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur euh, Média xibaar yi dañu koy euh, tàmbali ak institution euh, de prévoyance maladie ay di ay IPM la ñu nemmeeku nag fii ci Sénégal moo di ne am na ay IPM yoo xamante ni ci tur bi dong la toll booy xool IPM yooyee sosuwul loolee nag ñi ngi ko xamle ci ab rapport boo xamante ne def nañu ko gannaaw gëstu bu ñu doon def ci IPM yi nekk fii ci Sénégal leneen la ñu wax itam moo di ne yorin yi ñeel IPM yooyee lu ca bari dëppawul ak yoon ba tax na nag daan ci jël matuwaay ngir xam dëgg-dëgg IPM yi ni ñu tëddee ci Sénégal ak it ñu war a def ba yorin wi gën a ñoŋ Aminata Mbaye Sow enquête bi ñu ngi ko defee ci institution de prévoyance maladie maanaam kër yi fi toogal ñi nga xam ni dañuy liggéey ak seen njaboot ngir ñu mën a faju IPM yi gis nañu am na IPM yi xamante ni da doon dañ koy déclarer nii te boo demee seet saytu doo fa fekk dara donc ay IPM yu xamante ni euh, teguñu ci dara dañ ko déclarer nii am na IPM yu xamante tamit am nañu ay mbirum rëq-rëq ci seen mbiru gestion parce que euh, gis nañ fi ay IPM yu fayit yooyu yëpp tamit euh, mbirum euh, gestion bi la ñu tudde mbirum gouvernance yooyu yëpp permettre nañu gis ko waaye nag jàpp nañ ni am na ay gàkk-gàkk yu bëri yi ñu war a xoolaat ci noonu gouvernement bu Sénégal taxawal na institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire gis nañu xamante ni sax ci bulletin de salaire bi danañu dagg cotisation sociale bi mais duñ ko verser IPRES wala caisse de sécurité sociale waaw loolu mooy li nga xamee ou bien ay entreprises yu xamante ni dañuy ñëw mais duñu déclarer seeni travailleurs loolu mooy euh, li tubaab tuddee évasion sociale. bu ñu jógee ci ndaje mi nga xam ni dañ ciy càmbar li ñu jëlee ci enquête bi lee daañu jël ay matuwaay yu bees jëmale ko ci doxalinu institution de prévoyance maladie yi. gàkk-gàkk yooyu ñuy nemmeeku bu ñu kilee dañ koy corriger. mooy réew mi am na yoon am na ñu nga xam ne aussi ñoom la ñu ñoom la réew mi di fay pour ñu xool ndagam ñi war a def seen liggéey ñi ngi kiy def defuñu ko bu ñu ko defulee mais yoon dal seen kaw. li ñu nemmeeku mooy entreprise yu bëri du ñu verser cotisation sociale te loole mën na lompoñal doxalinu institution de prévoyance maladie yooyu lee Aminata Mbaari Sow ñu di ko jaajëfal ni ñu koy waxee woon ci ponk xibaar yi lu toll ci ñetti junni euh, tonu ceeb mi ngi ñu rënk ci magasin yi ay produ ay producteurs ñoo ko xamle ñoom producteurs yooyu nag ñu ne sax lu ëpp ca ñoom lu waral déclaré wuñu ceeb boobee ñoom xamuñu ko loolee nag euh, tax na ba tey jii jëwriñ ji nga xamante ni moom la dénk wàllu njënd mi ak njaay mi di sàkku nag ci mbooleem acteur yi euh, ñu def seen kéemtalaay kàttan waxtaan ci wàllu ceeb boobee ndax ñi ngi naan manqué na fii ci Sénégal ci mën a doon sax mu ma bañ a mën a am eh, fii ci Sénégal waa mu ñoom la ñu wax rek moo di ne ceeb bi dugg fii ci Sénégal ba nëgë ni dafa bloqué te xamuñu lan moo tax leeral yi dañ ciy ànd ak Maymouna Ndiaye Thierno Laurent Mendy am ndaje bu ëpp waxtu di dem ñi nga xam ni ñooy yëngatu ci wàllu ceeb bi jàkkaarloog fii ak jëwriñ bi ñu dénk wàllu commerce li ñuy waxtaanee du lenn lu dul ceeb bi nga xam ni fan yi ñu ngi naan dafa manqué jëwriñ bi li mu bëgg mooy na lépp leer. 3500 tonnes la. ci 3500 tonnes yi daanaka 1500 yi jënd nañ ko léegi mu des à peu près 2000 tonnes. ñi ñu duppee producteur ñoom qualité yu bëri lañu am ku ci ne ak la nga xayma. actuellement nii mu de riz may leen ñu may leen ñu may leen rek. juróom-ñetti fukki junni tonnes loolu la ñu xayma nii. réewu senegal dinañ ko jëfandikoo ci weer bu ne ci ceeb. Oh, ci juróom-ñaari fan ci weer wi li ñu amoon ci ceeb jege na juróom-ñeenti junniy tonnes loolu mu ngi woon ci stock yi ñu bàyyi woon ko fa. moo ne de ngir moytu jafe-jafe bi amaloon nañu ab lëkkaloo ci weeru août bi ñu génn waa UNACOIS ñoom nee nañu lii rek moo indi jafe-jafe bi. bu ñu demee ba naan ñi am ceeb bu ñuy jaay question bu 2000 tonnes la ak ton tonnes xam nga ne jafe-jafe amul parce que 3000 tonnes ceeb 2700 euh, tonnes le Sénégal di jël par jour pratiquement 2700 tonnes. 3000 tonnes mënatul consommation wu ñaari fan kon mënut nekk loolu mënut a poser problème mais li indi problème yi nag mooy dañu xëy rek unilatéralement li nga xam ne si mooy déclaration yu importateurs yi doon def pour mën a déclaration importation produits alimentaires yi ñu xëy téye ko depuis 40 jours. ci fan la ñu jëm mooy lëkkaloo goo xam ni ku ci ne boo fa demee di nga wax lu leer du am lenn lu ñuy nëbboo. képp ku am ceeb it ngay yor usine ñu lay ñaan nga fexe ba bokk ci plateforme ku nekk ubbeeku nañ ci pour yow ngay risier ngay banque semaine bu nekk ci ñaari yoon ci semaine bi lépp luy statistique maanaam lépp lu ñu produire ci riz ci usines yi ñu jébbal ko banques yi jébbal ko également des ressources comme intérieur pour que ñu mën ko ñu mën a wéeru ci loolu pour li ñuy def ci wàllu importation fii ñetti fan waa UNACOIS loolu la ñu jàpp ne ceeb bi du fi manqué te ci réew mii ministre bi ñu dénk wàllu commerce li mu xamle mooy nee na bi nga xam ni moom la ñuy bayee fii ci mi liñ ci war a def yëpp dinañ ko ci def ba benn jafe-jafe du ci am a Ndiaye lu aju ci wàllu ceeb boobee ak bay ba fële ca Ross Béthio la ñu fa nemmiku ñoom producteur ya fa ne am nañu lu leen metti jaaxle nañu ndax lu ëpp ci seen tool ya dafa daal di yàqu ne nañ sax lu toll ci juróom-ñetti fukki hectare euh, ci tool yàqu na foofee fa ñu naan euh, sulul di gox boobee nga xamante ne nag ay producteurs ña nga fay amal mbayum ceeb bu am solo ñi nga xamante ni ñoom la ñu yabaloon jàpp ni seen xam-xam euh, dana ca màcc mënuñu ca dara li ko waral nag moo dina gónóor yàq janax ya ñoom ñooy yàq tool yooyu te moonte producteurs yi ña nga doon waaju Diop leeral yi dañ ci ànd ak Ousseynou Diop. dëkk yi di Kasak Mundom Sulul lu bari ci seen hectares yi nga xamante ni bayoon nañ ko dañ ko mujj ñàkk. li ko waral di ay gunóor ak ay janax yoo xamante ni ñoo yàq lii di seeni gàncax gi fii nag ceeb bi ñu bayoon ci lu toll ci juróom-ñetti fukki ectare ci Sulul dafa mujjee yàqu. 68 hectares lépp janax janax yi yàq nañu ko. dëkk bi fi mu nekk nii mu ngi ci jaaxle bu tar ndax janax yi bu ñu ñëwee du ñëw ci jamono boo xam ni ceeb bi dafa nar fëcc ñor foofu la ñu ko foofu la ñu yàq tool bi ñun taxaw na ñu amuñu dara. lii andil jafe-jafe askan wi seen yaakaar nag jamono ji dafa yàkkeeku. sunu yaakaar dafa tas ndax du ñu leboon ay boru saako yi ñu ngi taxaw boru ñi nga xamante ne dañu jëloon seen bor ñi ngi taxaw léegi di taxaw di wut seen bor te lu ñu ko fayee di ñaan Macky sal mu dimbali ñu. ñoom askan wi nekk ci sulul am tiitaange ñu ni waxambaane yu góor yi nekk ci dëkk bi boo moytu ren jile daañu màngaan te li ko waral di seeni ceeb bi nu jiwoon duñ ko mën a góob. ñu ñaan ngóor gi mu ñëw wàllinu ci ci kii ndax ñu mën a dëkk fii nekk ci li nga xam ni ngóor gi moom la bëgg ndax ngoor gi nee na dafa bëgg fii balaa l'an 2017 béykat yi nañu béy loo xam ni dana dundal Sénégal yëpp ci yéene boobu la nu fekk nu nekk ci yéene boobu nu nekk ci yéene boobu ba lii fekk nu ci léegi sax mu ngi sunu xol waaye nu nga am ci ak ci ci tànge bu rëy a rëy rëy noonu. ñu ne góor ak jigéen mag ak ndaw bay rek la ñu xam ñoo ngi dëkk fii nag village ñoo ngi ñaan Macky Sall mu mu daan ñu dimbali si sunu hectare ya bu dul loo sunu doom yi daan dem jéggaani feneen dem fu ñu liggéey xale yu ndaw yee góor yi kenn du des bu boobaa du ñu xam lu ñu siy fekk. li nag waa DPV Saïd ak ay experts canadiens ñëw nañ sax ba seet ko waaye nag amul ci benn solution tax lu toll ci juróom-ñetti fukki hectare ci dëkk bi di sulul léegi nax say na. ñu di ko jaajëfal Ousseynou Diop ñu wax ci tiis wi nga xamante ne nag moo am ni kii tey jii muy woykat ba Ndiouga Dia wuy ju na boromam tey jii ci alxames ji moom waykat boobee nag jaar-jaaram ci dundam am solo lool ñu gënoon ko xam ci électricien nekkoon na itam koo xamante ni def na l'armée jaar na ca laata muy mujjee doon musicien fa ñu ko gënoon xam nag mooy orchestre Baobab ba nga xamante ni fa la nekkoon ba keroog muy à la retraite Fatou Bintou Konté moo delsi ak ci jaar-jaaram addunaa ko mana a juy luy wéy la addunaa ko mën a woy luy wéy la wuykat bu mag bii di Ndiouga Dieng làqu na tey ci suba fee ci hôpital principal bu Ndakaaru gannaaw ba mu feebaree feebar bu xaw a yàgg moom mi nga xam ne ci Rufisque la juddoo Ndiouga Dieng di woon doom ci ndem si yàlla wuykat bu mag bi di Ndeye Ngom Bambilor ma nga màggee fee ca Bargny nekkoon électricien de formation nag jotoon liggéey ca police ci année 1960 moom Ndiouga Dieng nag jot naa dugg l'armée wante yàggu fa gannaaw ba mu delloo defi li nga xam ne moom mooy musique bokk ci orchestre bi ñuy wax orchestre Baobab ba ba xam ne moom moo di à la jamono ji nag li nga xam ne moom moo di monde musique sénégalaise ñoom ñoo nekk ci dëj gannaaw ba musicien bu mag bii nga xam ne moo di Ndiouga Dieng làkk ko sama baay bi teel a réer nekk it ñàkk bu metti ci sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy dund filee Ndiouga Dieng nag dañ koo fas yéene rob ca Bargny ba nga xam ne moom la soqee ko gannaaw ba nu amalee levée du corps bi fee ci hôpital principal bu Ndakaaru Fatou Bintou Konté levée du corps boobee sax suba lañu ko jàpp gannaaw bi nag euh, danañ ko denc itam ni nga ko waxee fële ca baax ñi lay doon euh, ca Rufisque googee sax fa la moom Ndiouga Dieng nak bi nag groupe Futur Média bokk ko ak euh, njabootam ñu wax ci leneen muy commune bu Bogal foofee nag mairie ba daal nay séddale ay jumtukaay ci wàllu njàng ma nag ngir dimbali ndongo yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk directeur école yi ak jàngalekat yi ak préfet ba teewe woon nañu ko préfet bu Bogal ñoom nag la naqari rek moo di lu aju ci wàllu séddale googee dañu jàpp ni euh, yéex na ndax euh, loolee tax na kon bokk na ci li nga xamante ni sax dafay gën di gàllankoor njàng mi ñu bëgg nag ñu taxaw ci jafe-jafe yooyu nga xamante ni ñu ngi koy faral di jànkonteel Bakary Konté Sala Samb fourniture scolaire yoo xamante ne moom lañ ñu jox collectif enseignant ak directeur école yi nekk ci commune Bobo Galdi ne dafa am retard loolu. li ñuy lu mooy retard matérialisation mu ubbi tey jàng tey ndaxte fourniture yi dañ ko yéex a joxe fii ci monde rural bi parents d'élèves ay cultivateur la ñuy jaayaguñu dara ba tax na fourniture yi bu teelul ñëw moo gënoon. Euh, si les fournitures viennent un peu plus tôt. CODEC bi di ne 50 pour cent salle de classe yi yëpp ay quarantaine la. abri provisoire yi nu ma ko waxee léegi rek euh, boo jëlee région Sédhiou bi defe naa fi mooy. fi nga xam ne ne fii la abri provisoire yi gën a bari parce que boo jëlee écoles yi ci ñaar fukki écoles yi ñaari école rek moom moo am euh, moom moo amul abri provisoire yeneen école yëpp amul benn école booy dem boo xam ne ne leen soit c'est 100 pour cent abri provisoire ou bien plus de 50 euh, pour cent d' abris provisoire boobu. ci ñaar fukki écoles yi nekk fii ci diwaan bi ñetti kese ñoo am cycle complet loolu tax na ba sous-préfet bi di ñee ñëpp war nañ impliqué wu pour mun a relever défi bi. li ñuy préciser aussi mooy commune Bogal c' est vrai que ñaar fukki école la mais si ñaar fukki écoles yi mën nañu wax ne ñett école ñoom ñoo am cycle complet donc loolu aussi damay gën ñaax aussi maire ñaax population yi pour que ñu gën a liggéey parce que aussi. nguur gi bu muy def moyen aussi boo doo bàyyi commune boo xam ne école classe école yëpp ay cycle complet la defoo fa dara nga ñëw foo xam ne pour nga am élèves yu mat sax jafe na donc nag aussi il faut que école bu ñu ko créé ñu indi fa ay élèves parce que boo nee damay indi ñetti ñetti construire classe pour fukki élèves mais nga dem construire classe pour école boo xam ne di nga am 50 élèves. bu ñu ne dañoo jël compétence bi transféré ko si commune yi aussi maire bu nekk war na xam ne du ma xaar rek. bu fekkee da xaar état bi jox la BCI pour nga construire mais kon yow en tant collectivité locale lan nga def si liñ la liñ donc da ngay def BCI mais aussi ngeen ne man maire aussi ak sama partenaire yi tabax na classe bi tabax naa classe bi tabax naa classe bi. sous préfet du Bogal moom nag di ñaan maire yi ñi daal di def suivi construction salle de classe BCI. ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ak consultation yu njëkk tàmbali nañu ko tey ji euh, ca centre cardiopédiatrie bu hôpital fan consultation bu njëkk la laata nag ñuy tàmbali li nga xamante ni moom moo di opération yoo foofee euh, fondation Cuomo lëkkaloo ci ak partenaire am la ñu bëgg nag mooy taxaw euh, gone yi nga xamante ni dañoo amee jàngoroy xol ci àdduna bi te ñu xayma leen ci fanweeri junni tey jii ñu def li nga xamante ni moom mooy consultation yooyee ci teewaayu jëriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ak ministre conseiller Youssou Ndour Ndour moom it mooy njiital euh, comité de soutien bi leeral yi dañ ci ànd ak Souleymane Touré. ngir dimbali ñu toll ci fanweeri junni xale ñu am cardiopathie fondation bi di Kuyemo tabaxal na leen benn centre cardiopédiatrique bu bees mu toll ci juróomi milliards ci suñuy koppar. tey dañoo yegg si fii ci centre bi nga xam ni mooy toppatoo xale yi nga xam ni dañoo ànd feebaru xol mu nekk euh, loolu nekk lu rëy ci ñun ndax li ci ëpp xale bu am feebaru xol li ci ëpp dañ koy war a opérer bi nag léegi mën na am fii ci Sénégal kon euh, ñu ñëw fi ànd ak koo xam ni itam def na fi liggéey bu rafet ndax dafa ñëw dégg suñuy tawat xool ne moom mën na si def dara muy ki nga xam ne mooy présidentu fondation Queno bu Monaco. ngir loolu mën a antu ay organisation walla ay comité de soutien. dugal nañ seeni loxo. comme ni ñu koy waxee ci wolof def sa alal ba pare ànd ci ak xol bu rafet xol bu kii loolu lu jaral euh, vraiment apprécier Elena merci pour tout. bi ñu defee soirée le 3 avril yéen a koy fàttali am nañu presque 200 millions donc 200 millions yooyu nga xam ne am nañ ko. mi ngi nekk si comité bi moom nag du pour fonctionnement du pour lenn du pour voyage du dara xaalis bu nu teel boo xam ne comité bi dafay réunir bu nu gisee ku am jafe-jafe doon famille boo xam ne que war nga mën a fay parce que comme ni ma leen ko waxee mbir mi du du gratuit mënul gratuit parce que am na lu ay intrant am na yoo xam ne que du ministère bi du dara mais dañ ko war a fay. maa ah, ni ñu ko gisee rafet na trop parce que tey jii ni ñoom ñoom ni na trop. kontaan nañ ci bu baax même boo ñëwul sax dañ lay dañ lay woo parce que xam nañ ne xale bi feebar bi mu yor nekkul feebar boo xam ne feebar bu ndaw la ñu si def tamit seen kéemtu laay kàttan ñun heure bu ñu ñëwee ñu xool xale bi lu ci war dinañ ko ci def loo war a def dinañ ko ci def vraiment ñu kontaan nañ ca trop ak ñam Youssou Ndour niñ fi ñëwee ak ñam Awa ñoom ñëpp niñ fi ñëwee kontaan nañ ca trop di rafetlu tamit seen teewaay bi fii. ñenn ci xale yi jot nañ leen saytu ci bile centre. mu di étape bu njëkk laata ñuy waajal opération yi ci atum janvier 2017 Euh, Souleymane Touré cant ak euh, ñeel na la jëwriñ français ji ñu dénk wàllu jëflante ak biti réew euh, Jean-Marc Ayrault mi ngi jamono ji ci Sénégal di fi amal ab nemmiku tey jii ci ngoon moom ak naataangoom bi ne fii ci Sénégal di Mankeur Ndiaye ñi ngi doon janook taskatu xabaar yi la ñu doon waxtaanee nag bokk na ci lëkkaloo gi dox ci diggante Sénégal ak France ñu gis ni danañ ko gën a dooleel ba ci ndimbal li nga xamante ne France mi ngi koy indil Sénégal ci wàllu ko koom nee nañ loolee dinañ ko gën a dooleel dañ ci ànd ak maam Biram Diouf Cheikh na Laurent Mendy bëgg la def tegaat tànk ci Sénégal moo ministre français des affaires étrangères mi ñu jox ordre national du Lion ci alxamis bi muy rafet lu diggante bu dëgër gi am ci diggante Sénégal ak France. J'ai eu l'honneur de recevoir cette décoration, l'ordre du Lion, et bu mag la am bañ ma joxe décoration di ordre national du Lion. président Macky Sall dina amal visite d'État euh, ca France ñu am yaakaar ni visite googee dina ñëw rek yeggali bépp liggéey goo xam ni jotoon nañ ko def bopp ba léegi. relation de confiance d'amitié de coopération entre le Sénégal et la France. ñaari réew yi amal waxtaan jëm ci wàllu koom ak it politique feddali seen taxawaay ci conseil de sécurité de l'ONU ngir jàmm gën a sax ci àdduna si rawatina ci Afrique. Euh, les opérations de maintien de la paix euh, jéego yi ñuy def ngir jàmm am ci réew yi lu ñu waxtaanoon la rawatina ca Mali ak it ca RDC te dañ ciy gën a taxaw. des pays qui nous avons pu apprécier parce que nous avons beaucoup coopéré ensemble. dañoo rafetlu bu baax bépp tom boo xam ni Sénégal da kaa tegoon ci table bi ci waxtaan yooyu. notre coopération jamono ji suñu digganteek Sénégal ci mbirum entreprise yi luy dox la te it fu mu toll nii taxaw naa sax ngir lépp lu jëm ci aide au développement bi France di jox Sénégal ñu gën kaa yokku. mais aussi en termes de d'aide directe pour des pays qui peuvent en avoir besoin davantage que d'autres. Jean-Marc Ayrault di amal tukki nemmeeku fii ci biir Sénégal ci diiru ñaari fan lii di feddale rek diggante gu dëgër gi am ci diggante réewam ak Sénégal. Jean-Marc Ayrault moomee wax na leneen mu aju nag ci tirailleurs sénégalais yi nee na gëdd ba ñu leen war a jox joxuñu leen ko kàddu yooyu mi ngi ko yëkkati ba mu demee di nemmeeku sëg ya nekk ca caaro yi sëg yooyu fële tirailleurs sénégalais yi tëdd ñu teewlu ko ak Mame Birame Diouf. Ce matin j'étais présent à l'invitation du président Macky Sall aux côtés de mon collègue ministre des Affaires étrangères pour cette cérémonie en hommage au aux forces armées sénégalaises mais je alxamis ci suba si maa ngi woon ci wetu njiit réew sàll waaye ci wetu sama natango di Mankeur Ndiaye lu jëm ci tirailleurs sénégalais yi ñu bokkoon ci guerre mondiale yi ñoom nag liggéey ga ñu def lu réyoon la waaye booba léegi dama jàpp ni lañ leen waroon jox maanaam ngir gën a ràññee seen taxawaay ba tey defuñu ko. Il n'y a pas toujours eu d'ailleurs la reconnaissance qui aurait dû leur être accordée. ci xibaaru tàggat yaram yi ci la ñuy jàll wax ci jongante bi fas yéene dox ci diggante Sénégal ak Afrique du Sud loolee ci ASER ji lay doon sunu gaynde yi nag amal nañu euh, seen ñeenti tàggatu fële nga xamante ne rek moom mooy euh, Polokwane Polokwane nag ni ñu ko waxee rek def nañu fa ñetti tàggatu ci ñeent yi nga xamante ne war nañu ko def waaye nag fële nga xamante ni fa la ñu war a jongante euh, ñoom ak Afrique du Sud muy stade Peter Mokaba ba nëgg ne amaluguñ fa ab tàggatu lañ ci jàpp rek mooy hôtel ba ñu ne am nañ fa ñaari terrain yoo xamante ni fay def seen kéemtalaay kàttan ngir rek bu ñu janook bafana bafana yi ñu mën a am ndam Mame Fatou Ndoye yaa benn séance bés bu nekk depuis bi ñu yegsee fii ci Afrique du Sud gaynde yi di liggéey ci hôtel bi ñu dëkk ci pelouse boo xam ne qualité bu baax la am pelouse boo xam ne amul lu muy ñëwee gazon yi nga xam ne ñu ngi ci biir stade yi. ñu nekk foo xam ne euh, terrain yi nga xam ne foofu la ñuy entraîné ñu ngi ci biir hôtel bi mu nekk terrain yoo xam ne mën naa ne sax euh, suñu. championnat yi foofu sa Sénégal ak suñu stade yi bu ñu ko amoon dañuy euh, kontaan bu baax. ñëw fii. Euh, maanaam li ñuy dox euh, mu ngi toll peut-être ci 500 mètres pour dem ci terrain yoo xam ne qualité bi kenn waxatu ko donc def naa loolu moo tax entraîneur bi euh, choisir toog fii. altine la ñu yegg si defagum ñeenti séance boobu ba léegi mu mel ni nag récupération bi la ñu gën a mercredi bii nag ñu commencé ñoom gaynde yi ak seen staff di liggéey ci stratégie bi. voyage bi dafa xaw a métti parce que pour ñëw Afrique du Sud. déjà joueurs yi dañ def 13 heures maanaam fukki waxtu ak ñett pour yegg si Euh, te ñëwoon wuñu également aussi donc groupe bi njëkk ñëw daanaka 16 euh, la ñu woon bi ñu ñëwee effectivement defal nañ leen séance d'écrasage parce que ñoom ñëpp dañu génn ci semaine de match weekend de match donc euh, groupe bi ñëw également euh, mardi même chose également décrassage mais groupe bi ñëwoon lundi quand même am nañu une heure d' bu nga xam ne quand même ça a été un entraînement un peu donc loolu moo tax ñu ménager pour éviter donc deux heures d'entre deux fois séance d' yi mais def ko une séance parce que quand il faut que ñu cherche un peu fraîcheur bi gérer la fatigue du voyage mais gérer également aussi quand la fraîcheur équipe sud-africaine boo xam ne dafa bëgg bal bi di ko tripoter di ko jouer waaye nag ñoom ñi gaynde yi fas yéenewuñ leen cee bàyyi. déjà xam nañ suñu adversaire donc euh, ñoom dañu mën jouer jeu à l'intérieur. Euh, Sénégal mosul gagné Afrique du Sud c'est vrai mais incha allah je pense que ñun dinañ ko dinañ dindi loolu noonu. parce que xam nañ adversaire bi xam nañ dañuy football bu baax dañuy téye bal bi dañuy manœuvrer bal bi bu baax donc seen jeu boobu lañ xam nañ ko ci ñoom donc loolu lañ leen di empêcher rek pour ñu développer seen jeu. ajuma ji nag Lions yi dinañ dem fële ca stade Peter Mokoba bi nga xam ne demaguñ fa buñ ñëwee ba léegi war fa def benn séance de reconnaissance waaye fii boobu tanière bi nekk ci rancham bi mu mel ni mu ngi koy may muy liggéey ci jàmm ak salaam. Mame Fatou Ndoye Hamza Diallo cant ngërëm ah, ñeel na leen mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal sant leen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti Sara Cissé dina fi teew fii ci leen xibaar yi ci nasaraan.